Magor Dia maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay euh, madame Moreau. Magor Dia nga nekk spécialiste de la protection des droits euh, de l'enfant déjà ñu lay laaj sa xalaat naka nga gisee scandale ba am ca kër mandé bu Ndella la Diouf. Euh, donc euh, madame Moreau dama lay remercier donc di wax ni ah scandale bi am euh, depuis euh, ces quelques jours là bi am depuis deux trois jours je pense que du du gulet te du loo xam ni lu ñu bett la ndax gis nañu. bërëb yi nga xam ni mooy mooy ñooy ñooy euh, dalal gune yi euh, naka lañ ko lañ ko lañ lañ ko considéré au Sénégal donc dafa doon bërëb yoo xam ni joxuñ joxuñu ko benn solo joxuñu ko benn solo au Sénégal ku mu neex Sénégal jokk ubbi sa bërëb daa di daa di ni da nga ay xale ay gune ay tout tànk te euh, li ñu xam ci xale mooy que dañoo doon ay ay ay ay ay nit yoo xam ni dañoo dañoo vulnérable maanaam dañoo euh, dañoo dañu neexu la yor dañoo neexu la yor ndax bu ñu leen di yor il faut nga am ay compétences maanaam il faut que du da ngay jóg rek mën a yor xale xale pour yor ko il faut nga def formation am ay compétences et puis euh, voilà mu doon loo xam ni euh, day fekk si maanaam nga bëgg xale bëgg bëgg bi nga bëgg xale mais du da ngay jóg rek bëgg xale ni damay ubbee espace daa di daa di mën a mën a yor ay xale donc doon na loo xam ni daal lu ñu yëgoon suñu yaram la ñun en tant que euh, acteur de la petite enfance acteur de la protection parce que gis nañ ni euh, depuis vraiment at yu euh, at yi yëpp dañuy euh, dañuy jànkoonte ay problèmes yu mel nii euh, concernant les les bébés wala ay ay concernant la petite enfance. Euh, ñu gis ni bi coow li bare justice taxaw na naka nga gisee réaction bi nga xam ni la justice amal na ko par rapport à l'affaire Kër Yërmande bu Ndella Madior. waaw loolu dañ koy dañ koy rafetlu ah dañuy rafetlu justice liggéey bi mu def parce que ci saa si gis nañ ci saasi si am na réaction justice. waaye nag euh, damay damay damay aussi euh, damay damay remercier acteurs yëpp yi nga xam ne jóg nañu Sénégal gi yëpp jóg nañu euh, daal di dénoncer li nga xam ne am na dénoncer li nga xam ne am na balaa justice jóg donc je pense que c'est c'est important loolu am na solo yëpp am na solo trop bu mbir yu mel nii amee dëkk bi yëpp jóg ngir dénoncer ko donc loolu moo ci gën a am solo waaye nag man li may xaar du justice rek def liggéeyam. man li may xaar mooy ñu dem au delà au la mooy lan mooy bu justice defee liggéeyam ba pare ñu xool naka la ñuy euh, assainir maanaam naka la ñuy nettoyer euh, li nga xam ne mooy espace de la petite enfance parce que doon na espace boo xam ne euh, doy na waar trop doy na waar li ci xew doy na waar trop donc il faut mu am na benn texte boo xam ne c'est sur la réglementation des structures d'accueil de la petite enfance donc depuis cinq ans ma juróom at juróomi at a ngi nii ñu war ko euh, président war ko signer mais kenn xamul ba léegi lan moo tax signé wuñ décret bi donc te bu ñu signé décret boobu dinañu permettre dina permettre ñëpp ñu xam booy ubbi lu mel ni bërëb yu nga xam ni dañuy accueillir euh, ay xale di nga dina doon lu yomb te di nga ko xam te dina dina am ay règles di nga xam nooy jaar et puis dina am contrôle dina am formation bon dinañ dinañ dina am euh, ay ay ay ay critères yoo xam dinañ ko teg pour ñi nga xam ni ñooy liggéeyee ci bërëb yu demee noonu donc au delà de de justice bi nga xam ni def nañ liggéeyam je pense que ñu ngi koy saluer lu lu lu baax la loo xam ni c'est satisfaisant mais aussi il faut aller au delà de il faut ñu dem ñu jéggi loolu euh, xool aussi naka la ñuy réglementer espace yooyu di di di di euh, di accueillir gone yi. mais Ndella bu ñu ko déggee toujours dafa nekkoon si dynamique boo xam ne dafay xeex infanticide maanaam jigéen ñi nga xam ne dañuy am doom ba pare faat ko wala sàkkal ko pexe loolu aussi noo ko gisee. waaw dama ni euh, xeex infanti infanticide noonu lañ koy defee xeex infanticide du da ngay xëy benn benn bés rek daa di ubbi sa bërëb daa di daa di ni ku ku ku ku nekk en état de grossesse maa ngi xaar bu fekkee ni c'est c'est c'est c'est un état de grossesse euh, non désirée maa ngi xaar indi leen ma gone gi indil leen ma gone gi te euh, li ciy xew yëpp gis nañ ko li xew ci le fond du problème ñëpp xam nañ ko gis nañ ni am na ay euh, ay xaalis yu ci luñ ci tudd gis nañ ci wax nañ ci wax yu bëre donc li ma bëgg a wax rek foofu mooy que du ñëpp ñoo mën a ubbi bërëb yooyu maa wax léegi bërëb yooyu pour nga ubbi ko dafa am ay compétences yoo war a am personnel bi nga bi nga bi ngay bi ngay dafa am ay compétences yu ñu war a am maanaam ci wàllum nutrition ci wàllu développement wu xale ci wàllum euh, euh, santé yu ci bëre dafa am taxaw boo xam ni personnel bi ngay recruter dañ dañ ci war a taxaw ngir mën a accompagner xale yi donc bu fekkee ni amu ko rek day xaw a doy léegi nag bu fekkee ni nit dafa jóge foofu maanaam ndeela dafa jóge fële ubbi a bërëbam di ci di ko accueillir ay xale sans pour autant mu am compétence yi loolu du du du xeex infanticide infanticide dafa am ñu koy xeexee bu ñuy xeex infanticide am na ñoo xam ni ñoom lañ fi teg ñun ñu koy def bu ñuy xeex infanticide dafa am ay ay ay mbir yoo xam ni maanaam lu mel ni ay sensibilisation lu mel ni ay mbir yoo xam dañ koy teg ngir mën a xeex infanticide mais du da ngay euh, ubbi sa bërëb jël ay xale amoo benn compétence amoo sax ay moyens pour mën leen jox ñu lekk bu baax nga nga bëgg ni damay xeex infanticide loolu ay waxu nanga sax ndang la donc euh, du noonu la ñuy xeexee parce que dëkk dafa am nu muy doxee du da ngay xëy rek ni dama médecin dama dama dama bëgg médecine donc damay nekk médecin wala nga xëy ni damay dama dama bëgg a nekk lii dama koy nekk dafa am nooy jaar pour mën ko nekk donc il faut que les gens puissent euh, il faut que ñëpp euh, nekk ci règle ñëpp respecter règle ñëpp nekk ci li ñu war a nekk waaye bu fekkee ne da nga war da nekk ci li nga nekk ba ci yàgg nga nekk ci leneen wala nga nekk ci leneen loolu day fay indi problème donc ba tax na daal man je me dis que Ndella dafa def erreur euh, même si bu fekkee ni ay intention yu baax la amoon parce que mënuñu naatable ni peu être ay intention yu baax la amoon waaye intention bu baax taxul aussi nga ngay def lu la neex ndax dëkk dafa am nu muy doxee. Magor mais euh, aussi euh, am na ñoo xam ne sax dañu lancé benn pétition pour ñu tëj euh, pouponnière bu ndee la di Kër Yërmande est-ce que yow da nga d'accord ci pétition boobu waaw wala déet. pétition bi lu baax la lu baax la lu baax la man mi man mi signé wu ma pétition bi xam nga lu tax signé ma pétition bi. parce que dama dama dama jàpp ni loolu moo jaadu. tëj Kër Yërmande moo jaadu du problématique jël bébé yi. yóbbu leen ci endroit yoo xam ni moo gën a convenable lool du du débat mais débat bi pétition bi pour man ça devrait être une pétition pour réglementation des structures d'accueil de la petite enfance il faut pour man dañoo waroon yëngal état bi gësam état bi pour mu signer décret bi nga xam ni mooy décret sur la réglementation des structures d'accueil de la petite enfance parce que pétition bi par force par force bu fekkee ni euh, li nga xam ni moom moo am moom la ñu wax moom moo am par force kër ne dañ koy tëj par force dañuy dañuy dañuy jël bébé yi retirer leen yóbbu leen dans des endroits sûrs mais pour man la plus grande problématique c'est la problématique sur la réglementation des structures d'accueil de la petite enfance pour man pétition bi ci loolu la waroon porter donc moo tax man signé wu ma pétition bi te d'accord ma ci pétition bi donc parce que le plus grand man sama pour man le combat le véritable combat mooy combat pour que les crèches ak structures d'accueil de la petite enfance yi ñu réglementé ko voilà, voilà. Euh, euh, question kon am na appel booy booy lancé autorité étatique yi par rapport à euh, ça aussi lan ngay xaar le fait que justice réagir na est-ce que yaa ngi xaar ay daan si kaw Ndella Madior Diouf waaw man message bi may lancé autorité yi mooy euh, que rapidement wax nañ ko il y deux ans wax nañ ko il y trois ans que il faut que ñu assainir espace bi il faut que xale yi ñu respecter leen les bébés parce que xale mooy doon mag ëllëg te xale boobu mooy jariñ société bi c'est-à-dire ni niñ ko ni ni niñ ko accompagner loolu lay tari bu màggee euh, bu nekkee adulte donc je pense que il faut que état bi bàyyi xel gën a bàyyi xel tout tànk yi il faut ñu gën a bàyyi xel tout tànk yi te bàyyi xel tout tànk yi mooy créer leen espace yoo xam ni c'est des espaces réglementés que daara yi que crèche yi que pouponnière yi que euh, espace yi nga xam ne ay espace de jeu la lépp ñu réglementé ko mu am ay de réglementation de telle sorte que du lu waay lu waay euh, jàpp ci xelam rek mu mën ko def vis-à-vis des enfants donc c'est important te message boobu laa lancé lancé autorités yi pour que le texte texte bi nga xam ni mooy le texte pour la réglementation des crèches et autres structures d'accueil de la petite enfance ñu réglementé ko maintenant ci daan yi daan ñuy xaar man li may wax rek mooy justice def liggéeyam mhm. justice def liggéeyam parce que fii ay xale ñoo ay xale lañu ñu exposé ay xale la seen dignité bafoué wu xale yi mënuñu porter plainte xale yi mënuñu wax xale yi mënuñu defal seen bopp dara donc ce qui veut dire que seule la justice peut réagir te justice bi réaction bi mu war a am mooy que li mu war daan yi nga xam ni moom moo proportionnel ak euh, li li war a am ak li li nga xam ne moom moo am ñu daan ko ki nga xam ni moo def moo moo moo moo mbir mi donc loolu rek la ñuy xaar il faut que la justice soit appliquée dans sa rigueur il faut que lépp lu nga xam ni daan la yoo xam ni prévoir nañ ko ci cas yu nii nañ ko dañ ko daan ki nga xam ni moo ko def pour que lii nii nii nii bañ amati parce que on ne veut on ne veut pas que ces choses là se répètent parce que xewoon na fi ah. Hmm. xewoon na fi. am nañ am na yoon amoon nañ ci benn cas boo xam ni benn gone goo xam ni dafa décédé dafa deewoon ci benn crèche ba léegi euh, mujjul fenn mujul fenn mujjul fenn donc loolu mooy tax nit ñi di am fit di defaat li ñu doon defaat parce que bu fekkee ni dafa am mbir yu mel nii justice rek leewu ko jusqu'au bu donc ku mu neex def lu la neex donc ce qui veut dire que il faut que cette fois-ci que ce cas-là mu servir exemple ñëpp ba ku nekk xam ni bakkan dafa fort ku ku nekk xam ni xale du ay fo un enfant n'est pas un jouet xale nit la comme nit yëpp donc lu lu neex nga koy def donc c'est important que ñu rappeler loolu et que voilà loo man loolu rek laay xaar ci ci ci ci justice bi mm-hmm. et que je pense que tous les acteurs euh, tout le Sénégal attend la même chose de la justice sénégalaise. merci beaucoup Magor Dia ci tontu bi nga tontu suñuy laaj. merci beaucoup allez au Dia may fàttali ni spécialiste nga de la protection des droits de l'enfant en tout cas ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci disponibilité bi. bi.